suivre ngeen campagne bi aussi bien pour wàllu et pour Yewwi les Sénégalais ñoo génn massivement partout où on est passé en quatorze jours on a fait pratiquement tous les pays daanaka nelawuñu tooguñu et foo dem Sénégalais yi ay quatre heures trois heures du matin di la xaar la pluie sous le soleil xam nga ñooñu tey nga bëgg confisquer kii li na exprimer xel waru ko sax mën a xalaat parce que da indil réew mi guute gi nga xam ne du mën a dem donc déjà elle a parlé de trente départements yu mu gagné et elle a fait une précision bi nga xam ne ci loolu rek mënoon ngeen ko ci arrêté dafa ni je rappelle que trente départements la mu gagné alors que c'est quarante six départements elle l'a précisé à deux reprises au moins boo leen ko déglu au moins et quand elle parle des trente départements yu mu gagné dugal na ci trois départements diaspora et donc si dans ce que tu proclames tu mets les départements de la diaspora dans le dénominateur ça ne peut plus être 46 il faut nga def les huit de la diaspora et le dénominateur progresserait de 46 à 54 donc la première incohérence mathématique c'est-à-dire que tu peux et ci 30 yooyu nga dugal ci trois diaspora ni ça c'est 46 limitant seulement département au Sénégal yi alors que dugal ci huit diaspora yi donc le dénominateur de jóge 46 jëm 54 Donc elle aurait pu dire, j'ai gagné 30 sur 54, mais elle dit 30 sur 46. Manipulation. 1. Dans yi mu wax yéen ñëpp suivre ngeen que cité na ci Tivaouane gis ngeen PV yi na ci Goudomp gis ngeen par la suite PV yi na ci aussi Afrique du Nord ngeen par la suite PV yi cité na ci Sédhiou gis ngeen par la suite PV yi par respect pour elle du wax le mot qui suit ok mais c'est pour dire rek que ci seen bopp xam ngeen ni demeewul noonu démonstration scientifique ni mu demee te mu wér mooy Dakar Yewwi Askan Wi wàllu gagné nañ ko ak doole te Dakar sept député la Barthélémy Diaz mi ngi ñu toog def na liggéey bi ak équipe bu wàllu gagné nañ beneen vérité bi mooy Rufisque intercoalition bi gañe na ko ça deux députés comptez avec moi beneen bi mooy Kër Massar intercoalition gagné na ko ça deux députés beneen bi mooy Rufisque euh, na ko ça cinq députés bi mooy Guédiawaye intercoalition bi gagné na ko foofu deux députés la beneen bi mooy Thiès intercoalition bi gagné na ko quatre députés la beneen bi mooy Tivaouane intercoalition bi gagné na ko deux députés la beneen bi mooy Bignona intercoalition bi gagné na ko deux députés la Ziguinchor intercoalition gagné na que deux députés la Oussouye intercoalition bi gagné na que un député la Kébémer intercoalition bi gagné na que deux députés la Bambey intercoalition bi gagné na que deux députés la Mbacké intercoalition bi gagné na ko cinq députés la Saint-Louis intercoalition bi gagné na que deux députés la Sédhiou intercoalition bi gagné na que deux députés la Goudomp intercoalition bi gagné na la même chose Saraya intercoalition bi gagné na ko un député la Europe du Sud intercoalition bi gagné na ko trois députés la ENOP Europe du Nord de l'Ouest et du Centre intercoalition bi gagné na trois députés la Amérique et Océanie intercoalition bi gagné na un député la Asie et Moyen-Orient intercoalition bi gagné na que député la Afrique du Nord intercoalition bi gagné na que un député la Afrique australe intercoalition bi gagné na que député la boo leen ci cent yi nga xam ni moo nekk seulement ci département yi cinq qui au moment où je vous parle mi ngi ci intercoalition wàllu wàllu ak wàllu ak Yewwi mu des yi nga xam ni décompte yaa ngi et PV yi génn cinq au moment où je vous parle cinquante cinq députés sur les cent douze mi ngi ci intercoalition mënuñ ci yàgg dara te boo leen xoolee département yi ma lim xam ngeen Sénégal ni mu tëddoo électoralement parlant wér na leen mooy département yi ëpp doole ci Sénégal moo tax dans l'analyse comme ñoom dañuy wax ay nombre de départements on est allé au-delà après démonstration que nombre bi mu wax conforme à réalité on est allé ñun département yi ñu gagné boo jëlee bu nekk le nombre d'électeurs ba fa nekk nga additionné département yooyu nombre d'électeurs yi day représenter pour cent vous avez bien retenu le chiffre cinquante cinq pour cent du fichier électoral dañ yi ñu gañ boo jëlee seen nombre d'électeurs additionné leen day représenter cinquante cinq pour cent yi ñu amagum boobu cinquante cinq pour cent donc ça veut dire que ñoom lii nga xam ni tey jii moom la ñu amagum ñoom faites la différence day doon day doon quarante cinq pour cent voilà les chiffres xam nga en mathématiques les chiffres sont beaux quand vous les présentez tout le monde comprend amul manipulation moo tax koy gis muy wax te waxul chiffre rek xamal ne mi ngi manipuler nombre de départements la gagné jóge fa dem way kii lii ñu def nii defuñu parce que mënuñu ko def et jàpp leen bu baax li ma leen di wax pourquoi parce que après les cent douze députés yi nga xam ni moo nekk ci département yi te ñu dem avec l'intercoalition la formule bi ñu teg en place discuter ak ñoom loolu très sérieusement ba wàqi leen fa wàqi yu metti dafa am 53 yi nga xam ni mooy la liste proportionnelle liste proportionnelle mooy ku nekk bu ñu jëlee suffrage bi nga am au niveau national en absolu dañuy xool en relatif lan lay tombel c'est-à-dire que bu fekkee ñun dañoo cumuler lépp mu doon 53 pour cent ou 60 pour cent intercoalition bi loolu la ñuy jël multiplié ko yi mu jox ñu nombre de députés yi ñuy am ci cinquante trois yi nga xam ni mooy liste proportionnelle bu ko defee ku nekk pourcentage boobu la lay appliqué donc cinquante yi des fala jëm et lii boo leen ko xoolee ni mu tëddee ak tendance bi muy jëm ci liste proportionnel boobu war nañ fa mën a xaar vingt huit députés liste proportionnelle moo tax ñu leen di dànkaaf parce que on